gaar bu mag ñu ngi fii ci xolu Touba barab bi doonoon rawukaay ak làqukaayu defkatu ñaawteef yu bëri yu nekk ci dëkk bu sell bii di Touba. askan wi fi yeewu daanaka nelaw ba yandoor doon lu leen jafe ndax tiit ci seenu kaaraange ginnaaw ay jàmbat ak ay jooytu yu bëri yu askan wi yeewoo fii ñu ngi koy dund ci ñàkku kaaraangi yi ndigal bawoo ci xalif général des mourides Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou jëm ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Fall yi la Serigne bi sàkku mboolem lu fi ne lu jaarul yoon ñu jëlee ko fii ay immeuble ay cantines yu ñu fi tabax tayegul ak yeneen i mbir yu bëri Baay Faal yi ci suba ak juma ji fépp fu ñu jaar dindi ko ba mu set bépp jumtuwaay bu mën a dindi lii Baay Faal yi soobantaluñu ko benn tiranu am mooy jëfe ndigalu sëriñ bi. Cheikh Fall daa waxoon sëñ Tuubaa ne ko féeteel ak yàlla rek man ma féete ak yow lu sëñ Tuubaa ma sa bëgg rek Cheikh Fall def na ko lii moo gën a tuut ci li mu defloo Cheikh Fall kon nag lii bu ko defloo. nan jàpp ne ñun suñu yërmande suñu tawféex la nangu gi ñuy nangu liggéey bii su tawféex rek la ñuy jural. nguur ñaa ngi fi dañ ñoo faalewut waaye tey jii bi mitee góor ñëpp a jóg taxaw xam nga dañoo war na jóg bu yàgg dañoo wees fañ war na ndax bu jóg amoon bu njëkk kon lii du am bu kenn deewan ah. ñu tàmbali bëgg leen a rey ñoom dañu fi jóge balaa ñett a dee dañoo seetaanaan ba seetaan wuy nag waaye tey jii mett na ci ñoom ne mett na ci noonu waaye noonu gën a métti raxas gaar bi jële fi làqukaayu def katu ñaawteef yi askan wi bég lool ci dogal bi bawoo ci xalifa général des mourides tey am nañ mbégte bu baax ndax fii waxuma la ñun ñu fi dëkk waaye ñu fi doon jaar te xamuñu fi sax dañ ci amaale mbégte ndax képp ku fi jaar te xamoo fi yaa sa bakkan mu ngi ci xottu gerte ndax mën naa ne viol nañ fi nit tëdd nañ fi nit rey nañ fi nit lii am lépp seetaan ndax dañu daa këf suñuy téléphone ñu ni ci yàlla ñuy mandi xeex di daanu ci suñu kaw ñu ni ci yàlla seetaan ba mu ëpp na doole bu ñuy root ñu ni daggal saagay ndey bu ñu teel na jóg teel jël matuwaay kon tey lépp lu am barab bi di gaar bu mag bokk ci barab yu askan wi gën nañu ko joxoñ ci ñàkk kaaraange ci dëkk bu sell bi fii ci diirum ñaari at yi lu mu néew néew ñetti doomu aadama faat nañ leen fii mu doon lu askan wi yàgg nañu koo jàmbat ngir ñu jël ci ay saafara dina wàcc. mën naa dox na dox.